en compagnie du président Chersek et de la famille, dans l'intimité, nous avons reçu le président la dans d'excellentes conditions. Il a remercié l'État du Sénégal. Il a remercié également toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que ce jour soit le jour de mois de Ramadan. Nous avons simplement son soulagé la suite peut-être on est combat pour la suite. sant yàlla bu baax ci ndigalu ministre des sports monsieur Matar Ba Cheikh Seck ànd ak famille Lamine Diack accueillir ko ko accueillir rafet ko bu baax état du Sénégal gitu, président yi wane ne ne dafa am yàlla parce que ni ñuy wax lépp yàlla moo ko décidé woon donc ñun loolu la ñuy jàpp di ko rafet ci turu ministre des sports Matar Ba ak turu sport yëpp